fanweeri simili bootu ci ñeenti waxtu dal leen ak jàmm ci xibaar yi. tey jii di fanweeri fan ak benn ci weeruk décembre bu vingt heures jotee njiitu réew mi wala amal ab discours loolu ci télévision nationale lay doon ñu koy xaarandi mu addu ci mbirum yokkum courant mi ak wàllug yeneen i ponk yoo xam ne nii askan wi yitteel na leen ca Louga Moustapha Diop maire bi ab rapport pour commission d'enquête boo xam ne nii moom moo ko taxawaloon moom moo dal ci kawam nee nañ daal doxalinam ci wàllu ko suuf doy na waar waaye maire daal nekk na loo xam ne nii euh, def guñ ca yey yàbbi daañu ci dégg Abraham Paul Poul ma ñu toogal ca euh, Louga ca Tobène di ab dëkk bu nekk ca département bu Tivaouane askan wa mer futt la ñu def la ko waral nee nañ seen i toor dañ koo nar a fu seen tool dañ ko nar a fuqar ñi ci ñoom ña koy fuqar ñi mooy ña nga xam ne ñoom ñoo di exploité lii di phosphate ba la ñu bëgg moom moo di ñu yëraat anam ya nga xam ni ci lañ leen di joxe ndàmpaay dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci àndal yi ci yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm Assane Diouf moom moo nekk ci machine bi tey jii fanweeri fan ak benn ci weeru sattumbar atum 2019 at mi di euh, tàggoo ñu dara dugg euh, ci at mu yees njiitu réew mi comme nam koy defee saa su nekk di at bu jot buñ toll fii war a jàkkaarloog askan wi ci ab discours de la nation loolu nag ñuy xaar yenn ponk yu am solo yoo xam ne ni daal yaakaar nañ dina ko ci yëkkati rawatina yokkum njëgum courant mi campagne ko gerte gi nga xam ni dafa gëll ak euh, yeneen i mbir yoo xam ne nii askan wa ñoo ngi ko cay xaar rawatina euh, weccet wu bees wii di éco wi ñi euh, dañ koy dugal ci dendu Afrique sow jant réew yi seq UEMOA ci weeruk sulet atum 2020 wi ñu dugg gannaaw discours boobu di ngeen mën a suivre ab conférence de presse bu njiitu réew mi ak lépp la nga xam ni moom moo ca aaju ak ndaw lañu ñu fa yabal waaye tamit mu nar nekk loo xam ne nii ci rajo Futur Média lañ koy synchro synchronisé ak euh, télévision future euh, Média, bu 19h euh, jotee timit dina am ab débat boo Radio Futur Média, ci radio média Abdoulaye Cissé war ko séq ak yenn ci ay gan. ak RFM kumpa jeex nañ ko waxe woon ca bopp xibaar yi dañuy dem ba ca Louga foofa maire ba lañ fa joxar mi ab baaraam ni doxalinam ci wàllu ko suuf daal dafa nekk lu tey xel loola gannaaw ab rapport pour commission d'enquête boo xam ne nii moom ñoom mairie ba ñoom ñoo ko taxawaloon rapport boobu nag nekk na boo xam ne nii disponible na ci weeruk mars 2018 ba léegi waaye ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa conseil municipal ba siiwala ko leeral yeeg Abraham Polpuy ci conseil municipal bu ñu amaloon ngir amal vote budget atub 2020 pour commune Louga nag ginnaaw bu ñu defee lecture ordre du jour ñenn ci conseillers yi def ay amendement ngir ñu mën a waxtaanee nan la ñu yoree suuf balaa ñoo vote budget bi ci nii nag la pëcc xoo ak werante bu rëy am ci diggante conseiller wu opposition bi ak ñu nga xam ne ñoo yoroon enquête bi contre maire bi mustafaa Diop ak ay conseillers am ñenn ci conseillers yi ñoom dañuy joxoñ baaraamu tuuma Moustapha Diop litige foncier yi nga xam ne am na jamono ji ci Louga Amar Thiam moom conseiller municipal la. ci question wu suuf Louga ci Moustapha Diop dafa lëndëm këriis est-ce xam nga luga mooy benn benn commune bu nga xam ne amul commission domaniale lim xam yaa baax yaa gore yaa mën a maye xaalis ñun soxla organe de contrôle war nañ conseil municipal ak président la commission d'enquête, enquête bu jëmoon ci wàllu suuf si nag moom lu mu xamle mooy Moustapha Diop maire conseil municipal. nag liggéey bi feeñal na yorin gu bon nga xam yor nañ ko ji rapport boobu envoyé ko maire depuis mois de mars 2018. ni ko ne comme publiquement convoquer le conseil municipal nous rendre compte publiquement defe naa ni loolu moom boobu ba tey ko bu avec la loi de la majorité mu fexé ba nu def lenen que sous li ci nek lu lëndëm yi bari na lool. lu jëm ci walu question foncière bi buñ ko ci laajee Mustapha Diop bu cee yëy bi wayé mom lu mu xamlé moy commission bi supprimer won nako bu yagg mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. Abraham euh, jaajëf dañuy dem ba ca Toobeen di ab dëkk bu nekk ci département bu Tiwaawan ci région bu euh, Kees foofa askan wa mer futt la ñu def ndax nee na ñu seeni ko tool dañ ko nar a fuqar ci ci ñoom loolu nag ngir exploiter lépp lu jëm ci wàllu ko phosphate ñoom askan wala ñuy sàkku moom moo di ñu xoolaat euh, xa yoon ak barem ya nga xam ni moom la ñuy tërale seeni ko ndàmpaay lu ko mooy moom joom du ñu joxe seeni suuf nee nañ dëgër pissement boobu ñoo ko jàpp ci weeru ca toobeen ñu dem fa fekki fa Cheikh Anta Diop bari woon nañu lool ci penc mi ci dëkk bii di toobeen ñu yor nak ay tableau Natal ci ne laataa ñu joxe seeni suuf de dinañ xoolaat bu baax ni ñuy leen di joxe seeni ndàmpaay daanaka dëkk yu bëri dikkoon di toobeen ciise màkk kër mëgéey ak waa yendu naan ñoom ñëpp nee def nañu benn dank ngir jàllale seeni tawat Cheikh Top moom moo yor seen kàddu moo waral seen teewaay fii nii nga xamante ne fi lan daje dañoo dëkk ak entreprise bu ñuy wax ICS mu nekk fii suñu wet wara a exploiter terre yi nga xamante nii moom lañ doon bayee mooy suñu seule source de revenu te exploitation boobu noonu ICS di wax ni fii ak mois de janvier bii di ñëw dina jël suufi te boobu ba léegi waxtaanuñ ci ak population yi ba juboo ndax suñu suuf yi kët moom la ñu am balaa muy mën a jël suñu suuf ñi ngi koy ñaan woote waxtaan ndax waxtaan lu mënul faj yaakaar naa xët-xët mënu ko faj ñoom seen jëmi bopp sax nee nañ jamono yi daal li nga xamante ni daal gis nañu ko ci mbir mi teguwul ci yoon ba tax na ñoom nee nañ ñi ngi sàkku ci sous préfet bi ak préfet bu département bu Tivaouane ci pexe. léegi nag ci loolu ñuy ñuy interpeller autorités yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu ñëw dimbali ñu su préfet jox nañu rendez-vous janvier ñi ngi koy xaar pied ferme. directeur bi nga xamante ne moom moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllu kiiw ci ICS bi ñu jokkoo ak moom nee na képp koo xamante ne laal nañu seen tool dinañ leen jox joxi ndàmpaay waaye ndàmpaay la yoo xamante ne benn baram la ñu tënk ci département bu Tivaouane yépp préfet bu jiite ko waaye ICS di wax ne képp koo xamante ne jël nañu sa tool de daal la jox ndàmpaay Diop. Cheikh Anta jaajëf wax lu soxal grève bi nga xam ni ñii di waa cadre bu syndicat yi yëngatu ci wàllu wér gi yaram te ñu duppee seen bopp euh, syndicat de la santé pour la justice sociale ñoom seen grève boobu am na yenn gàllankoor yoo xam ne ni indi na ko ci l'hôpital la Dantec euh, fa nga xam ni moom moo di service dialyse ba euh, kii moom ab patiente la di Bintu Waxaab Ba di ko ñaawlu bu baax a baax ci téléphone Umu Kalsom li ñooy dañoo grève mais ñoo xam ne depuis samedi ba léegi jalisuñu ñu bëgg ni boîte d'aujourd'hui ñun toj ñun jalis moo ñu yor bu ñu jalisu du ñu mën a lekk du ñu mën a naan léegi ñu nan la ñuy def ay xale yu ndaw tey tey si ne ñu ngi ñu bindee sax naan seen benn bi day metti man naa feebar man sama bopp damay jalis quatre heures du matin lañ jóg suñu kër ñëw ba léegi ñu ngi fi ñu ngi nii ñibbi techniciens yi lu ñuy grève yi techniciens yi daal ñooy grève techniciens yi daal lañu ne moom ñoom ñooy pour xaw ma seen salaire xaw ma ñu xaw ma lan ko daal grève bi bu dee am sax aussi bu hémodialyse moo ci bokk li nga xam ne mooy suñu bakkan moom la ñuy dund xale yaa ngi peese tey ñu ngi ànd ay trois kilos quatre bi léegi ñu nar a demaat ba jeudi ñooñu bu ñu ñëwee ñaata kilos la ñaan bi yàlla rek ñu yor fu mu nekk nii ba jeudi ndegam jeudi nañ jalil sax bu ñu ko teg ci loxo yàlla rek fi mu nekk nii ñu ngi ñu waaye fi mu nekk suñu xel dalu kenn suñu suñu xel dalu lu jëm ci wàllug permis yu yees yi nga xam ni moom la ñuy euh, defaraat maanaam permis yu njëkk yooyu nekkoon ci këyit ñu koy censé di ko defar permis numérisé euh, loolu nag tey jii la app ba koo xam ni daal yor nga ko woto fii ci diwaanu Ndakaaru euh, da danga ko war a yeesal am bu yees bi lu ko weesu tey jii rek boo moytuwul bala nga kaa amaat dina nekk ay jafe-jafe ndax permis yooyu ëllëg la ñu koy daal di d'or uh, koo xam ni nag deful lu ni mel buñ ko tegee loxo uh, bo moytuwul dinañu nungu lii di uh, permis de conduire waaye tamit amande ko lu toll ci ñeenti junni ba ci juróomi téeméeri ko junni mën na am sax ñu teg ko ci daanuka kaso gu toll ci juróom benn weer ba ñaari atu kaso loolo nekk loo xam ne ni article un bu code de la route moom moo ko digle démb la ñu xaatim euh, contrat bu yees bi nga xam ni moom mooy jox kër yi di seen o séddaleem ndox mi ci euh, diwaan yi taax yi ak euh, la ko wër lool nag nekk loo xam ne nii askan waa am nañ ci ak gis-gis ñoom nee nañu ak ku fi manti nekk daal lañ ca bëgg moom mooy ndox moo xam ne nii mu sell la te mat saa yuñ ko soxla waaye tamit facture yi tamit bañ a nekk loo xam ni lu seer torop la Kumba Sanjaan Fay kon nag keneen kuy ñëw itam dañuy xaar ci yow nga def lu romb lu SDE def. ni SDE abale ab société bu bees wuutu ko. ñaari société la wala je ne comprends pas wala. ba changé nom bi des choses comme ça pourquoi ñu yëkkati yëpp bëgg ko jox tubaab yi ndax tubaab yi actuellement amatul dara. ak nuñ ko mën a tuddee boobu lépp kërub liggéeyukaay bi ñu dénk yoru nupp ak sédd lépp ndox mi ci dëkku potaax yeeg li leen wëx mu mel ni li koy xaar cib liggéey yu mu war a jooyanti yombut. xam ne affaire ndom moom moo dañu ci

war tambali tàmbali liggéey ba supp benn fan ci weeru janvier atub 2020. RFM rajo askan wi. xibaar yi ci RFM. Ndate job atep fukk ak benn nappkat ya nga xam ni ñoom lañu tegoon loxo gannaaw fitna gaamoon amoon ci ay bés yu ñu génn seen digganteeg takk der yi ba ñuy wax wàllug quai de pêche foofa ñoom euh, ni ki euh, procès boobu rek daal di nañu koy euh, dàqandi ba juróom-ñaari fan ci weeruk janvier parti siwil bi moom moo teewul woon ni ki ji ca tribunal ba foofa ca Mbour général Cheikh Gueye di chef d'état-major ba woon daal nay tàggatoo ak uh, ay naataangoom ci l'armée bi niki tey jii moom moomu nga xam ni moom moo fa nekkoon diirub ñetti at uh, ba léegi ba ci jamono ji ñu yóbbu ko ci ñaareelu section bu cadre yu larme yi uh, moom la mu wax daal moom moo di mission ca bopp ak l'armée gi gañ ko dénkoon def na ko ci anam ya nga xam ni noonu la ware woon ak ci teeyu bakkanam Papa Balla Gueye ñetti at yoo xamante ne def na liggéey bu am solo ci boppu l'armée bi général Cheikh Guèye jamono ji nag ma ngay dem gannaaw ba nga xamante ne dugg na ci ñaareelu section cadre l'armée bi loolee nag gannaaw fanweeri at ak juróom-ñeent yoo xam ne def na ko ci wàllu carrière am donte nag mu ngi rafetlu bu baax a baax jàppale gi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall defal na ko ko. suñ fi yegsee c'est parce président de la République chef suprême des armées a ci condition yoo xam ne da ngeen mën def seen liggéey ni mu waree lu am solo la boo joxee nit ki mission te joxe ko ay moyens aussi du mën a def donc moo tax chaque fois bu ñu tasee moom day gën dalal suñu xel. jaar-jaar goo xamante ne daanaka ay naataangoom ñoom ñëpp ñoo ko daal di rafetlu boole ci ak jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu l'armée bi Sidiki Kaba di wax ne Cheikh Gueye nekk na koo xamante ne ku am valeur la te taxaw na ngir fexe l'armée bi du gën a suqaliku gannaaw ba mu jàppee ne doon na koo xam ne ab tabaxkat la. dafa participer ci li nga xam ne mën nañ ko wax tey à la construction ñëpp nee nañu c'est un bâtisseur. soo demee Saint-Louis Kaolack Thiès. Némad partout da ngay gis ay bâtiment yi nga xam ne wone na moom mii loolu dafa ko jël comme élément yi nga xam ne am na solo ci suñu armée. ñëpp daal di koy delloo njukkal ci l'armée bi général Cheikh Guèye nag jamono ji def na tuuram bu mujj ci kanamu kilifa yi militaires yi ak yenn ci ay soldats mu doon loo xamante ne nag tiisoon na lool. Papa balle Sopi soppi Sopi statut bu APS di agence de presse sénégalaise Legi ci jamono ji mu société nationale am ap budget bo de Yo day n'y ci ñetti million dem ba milliard nek na lo ah, di directeur général ni ah, dina am ay am solo yo xamni dañu ko APS soppi mbubu jóge kon établissement à caractère public commercial et industriel ñu koy duppee léegi nag SN APS loolu nag bi budget dina yokk jóge 350 millions dem 1 milliard loolu nag tax na ba ñu bëri ba nañ di yeglu bëgg jël direction APS directeur bi fi nekk di Thierno Birahim Fall ne loolu moom doy noir. waar. li ñu rek moy bi bi ñu annoncé lolu assemblée ba léegi si votre budget bi dal, euh, xëccoo yi dafa bëri donc ñoo xam ne kenn mosu leen gis sax ñoom ñëpp ñu ñëw

caractère industriel et commercial bi fi nekkoon ba bërki démb bi muy bi loi bi di jàll assemblée boobu wàcc na liggéey donc beneen nag la ñuy dundal muy SNAPS boobu nag moo ëpp maxaama moo ëpp dayo si wàllu yoon si wàllu koom si wàllu koppar si wàllu moyen donc boobu nag moom lañ taxawal nii di si am yaakaar président de la République nag li mu def rëy na lool lool lool lool mun nañ ne sax révolution la donc parce que radicalement APS day changé xar kanam agence de presse sénégalaise NAK ñu ko taxawaloon ci atum 1959 projet de loi bu ñëw pour Sopi statut NAK adopté nañ ko assemblée nationale ñuy xaarandikoon promulgation bi bu ko defee mom dana mën a ci ñen fuk ak juróomi département yi am ci biir réew mi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. tagat yaram Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di fay ndaté di nuyu ñëpp. ana la ci gëna a ak euh, xayma lañuy euh, doré kon at bi nga xamante tay lay jeex. Euh, ci walum sport kii di directeur de la haute compétition fele ca ministère des sports euh, wax ni kon euh, amna lo xamantene kon doy na ko ci limu mu gis ci yenn sport yi waaye am na sport yoo xamantene kon ba tey am na liggéey bu bu mag boo xamantene ne war nañ ko def su ko defee ñu mën a am ay résultats yu baax ci atum 2020 Souleymane Boun Daouda Diop lay wuyoo ñu déglu ko ak Malal Junior Diagne. bu ñuy xool 2019 moom dëgg dëgg mën nañu ni am nañu ay succès football bi def na effort yu baax a baax a baax handball si jigéen ñi def nañu effort yu baax def nañu coupe du monde basket si góor ñi def nañu effort def nañu coupe du monde jigéen ñi am nañu médaille d'argent au niveau des championnats d'Afrique U18 yi euh, dem jël nañu deuxième Afrique dem coupe du monde mais écart bi entre entre ñoom ak coupe du monde euh, monde bi dafa bëri donc euh, sport collectif moom góorgóorlu nañu trop arts martiaux yi aussi jàmbaar lañu ku si mel ne judo ku si mel ne karaté ay jàmbaar lañu taekwondo aussi ñoo ngi def ñoo ngi liggéey liggéey bu wóor a wóor ndaxte ay xale lañu ñoo ngi am commencé am ay résultats. li problème bi kay fi mu amee mooy athlétisme. athlétisme moom vraiment daf ñu euh, relève bi assuré wuñ ko relève Amy Mbacké Thiam Amadou Dia Ba yëpp assuré ko. mais yaakaar mën na am ndax actuellement ñoo ngi accès seen politique ci xale yi. loolu la ñu fàtte woon dëpp yàgg-yàgg dañoo nekkoon rek di liggéey ak ay ñoom Amy Mbacké Thiam ak ñooñu fàtte xale yi. loolu moo ñu rattrapé mais équipe bi nag moo koy jéem a defaraat. am nañu aussi. canoë euh, kayak am jambar lañu triathlon jambar lañu natation gymnastique ñoo ngi góorgóorlu mais fofu aussi problème dina am ndax écart bi am entre euh, Zimbabwe Afrique du Sud Égypte Tunisie Algérie ak ñun dafa bari bari bari bari pour ñu combler ko il faut que ñu jël xalé yi nga xam ñoo ci gën yóbbu ci ay bay bourse ñu dem ci ay pays yi nga xam ni ñu fay def gymnastique ak natation pour ñu mën a améliorer wu. loolu moom loolu rek mooy solution bi. Souleymane Boundal job kon nekk directeur de la haute compétition ngir tamit ñu mën a am ay résultats yu baax faaf ñu am ay stade yu mucc ayib loolu nag euh, manqué lool Sénégal ba tax na suñu naataango di salib Diallo nekk ci APS euh, jàpp ni kon ci lu mel ni JOJ ñu jëm occasion la kon Sénégal retard bi mu am ci wàllum infrastructure mu ko dabu ñu déglu ko ba tey ak Malal. mun nañ wax ne tam challenge la benn combat bu rëy la am moom lañ nar a dañu war a outil ubbi ay outil ay infrastructure pour niveau niveau mondial bon challenge la challenge bu rëy la mais mun nañ ko def parce que bon Jeux olympiques boo koy organiser say yow daf lay dimbale yow da ngay am naam mais say yow dañ lay dimbale ñun dañu am déficit infrastructurel donc moment bi dafa arrivé pour ñu régler suñu problème infrastructurel yi parce que Jeux olympiques soo ko organiser ay jumtukaay yoo xam ne Euh, niveau mondial ngay puisque dañ dañ dañ une difficile am si infrastructure yi ñu réglé ko ensuite aussi parce que dañuy xool bu baax suñu yeneen discipline yi élite suñu yeneen discipline comme athlétisme ay natation élite bi amul tous ces jeux olympiques de la jeunesse là entre 14 et 18 ans lañ occasion bu rëy la pour ñu mën a former suñu élite am di ay xale tàggat ay xale pour ñu nekk ay champion élite ndax itam waruñu sóob ci yëf entreprise yi nekk ci réew mi ngir ñu dugal seen loxo ci tabaxum jumtukaay yi Sénégal moom dañuy bëgg a def loo xam ne amul si sport dañ développer développé sport yëpp loolu dañ koy def dañ koy def dañuy def responsabilité sociétale des entreprises parce que nous suñu dëkk amuñ quand même trois cimenteries même su doon enseigne bi ngay defar benn enseigne boo xam ne benn tur bi ngay tuddee entreprise beaucoup, mais dañ dañ si nar a dugal seen loxo suñu bëggee développement dëkk bi dañuy dugal seen loxo si sport parce que sport mooy andi santé. Salif Diao Diallo kon nek sun natango ci APS ñu jeexalee ko ak Habib Diallo mi nga xamante ne moom moo ngi Metz def euh, début de saison bu baax ndax dugal na fukki but euh, ci Ligue 1 bu France entraîneur nak tay yëkëti ay cadeau euh, wax wax ni kon euh, ñoom xalaatuñu ko euh, transféré ci hiver bi donte sax am na club yu bëri yoo xamante ni euh, bëgg nañu kon ndaw sénégalais boobule moom nag muy dafa prolongé woon contrat am ba 2022 mille vingt ba tax na kon ci benn entretien boo xamante ni.